waa am na solo yooyu kàddu yoo xamante ni kàddu yu am solo la ci opposant ndax boo dee xool euh, ku demee ni Sonko daana wax lu demee nii. maam gouvernement bi lu ñu nas Sonko da ko daan xam. kon ñoom Sonko lu ñu nas tey buggaan xam ko loolu lu mën a nekk la. lam daan waxit ni euh, président Macky saal néew ma dooma tëj waaye say dongo na sa des. Hmm. yaakaar naa nit noonu la ko buggaan waxee. waaw say loxo dina taq deret waaye loolu lépp ñaanuñu ko daal beneen bi dégg ko mu ne ko Sonko góomu robaale bu Sénégal la. waaw. Hmm. góomu robaale nag mooy loxo xam ne du tàggoo teeg du tàggoo ak yow. kon xam naa ni daa. <laughs> yeggaleel yeggaleel yeggaleel. <laughs> yeggaleel yeggaleel. <laughs> loolu kay mooy Sonko du tàggoog ñun. <laughs> waaw loo xamante ni moom fii ba dee moom doo tàggoog moom. waaw loolu mooy góomu rabaale xaj na foofu moom la ko xaw a kiyee rek mais daal. Mm. Euh, ñu ngi koy ñaanal daal di wax ni yàlla si yàlla wis ndox mu sedd. Mm. te bu fekkee dem na. waaw bu fekkee lu luñ ko laaj la loo xamante ni laale wut ak politique yoonu politique nekku si lu mu wax la. Hmm. su demee na leen jox ay preuve hmm. su fekkee joxe na ay preuve ñu ne ko preuve yi nga yor baaxut na retirer ay propos am ci kanam senegal yi. kon retirer waaw bu mi ak retirer. bañ a loolu wàññiwul dara. loolu hmm. da lay gën a yokk mais du la wàññi. mu retirer. waaw bu fekkee ne dafa yor ay ay propos yoo xam ne teg na ko ni lii mooy dëgg. ñu dem ñu ko ah lii kat wax dëgg yàlla demewul noonu nii la demee moom mu xam ne kat information yi nga amee demewul noonu jéggalul dellut ginnaaw bu la neexee nga defaat conférence de presse nga dellut si ginnaaw bu ko defee ñu mën laa bàyyi nga continuer sa liggéey ndax it moom Cheikh Yirim ñoom ñëpp xañ na dana si ñëw ak ñi boobu da ngaa ñëw ci boobu est-ce que Yirim li ñu koy laaj ñëw nga ci fa mu xuus yàgg moom ma nga ca ba Yirim da nga siy ñëw wooloo de Yirim da nga siy ñëw ma defee da ko yor élément bañ bugaan waaw lépp laa boole. la lépp laa boole waaw aja tabaana mu def xool ba si Cheikh Yirim ak ñoom Kader ak ñëpp a si yem. Hmm. boo defee say. non non fi nga xuus noonu moom après beneen élément bi moo ciy ñëw. Ah, dama foogoon ci bugaan rek nga wax. ah voilà ñëwal ci bugaan. damaa jàlloon si Yirim bi après moom la lay signalé. non ji waaw ah. dem. non baax na fi nga nekkoon. maam boo defee say propos. Mhm. buñ la woowee xamal na ne lii nga wax ni kat amut. Mhm. mais neen ah man de lii laa yaakaar ñun ne noonu amul da nga jéggulu foofu ni leen dinaa def conférence de presse boo defee conférence de presse nga leeralaat Sénégal yi nii leen lii ma waxoon kat wax dëgg yàlla demewut noonu waaw ndax information yi dañ la koy jox ay nit la koy jox de hmm. waaw non moom dafa am ay kii mais ay nit a koy jox nit nga ko mën mais ñoo ñu waaw mais ay nit lañ na woo kooku nañu ko saa looloo gën di sax lan looloo gën a wóor ku ne ci wet Sonko waaw hmm. man ku nekk si wet Sonko bu fekk opposant la ku nekk si wet Sonko lu ma wax du gëm Hmm. waaw ah ndax Cheikh Diba gis nañ ndax gis nañ fi mbiru Cheikh ah, Diba loolu wóor bi mu ne seex daa bañoo ndax caaxaan yi mu gis waaw nee na mu nekkuma si caaxaan yi ndek Cheikh nga ndek Cheikh nekku fi mais nag loolu wóor ndax ki nga xamante ni mi ngi ànd ak diw sax mën na laa sarax daane xaaral ma jox la ma sarax ma sarax ko lii ba xam dana fi mooy am déet hmm. am na xam ne bu ñu la ko sànnee sànniwaat leen ko bul ko laal baaxut posen la hmm. moo tax information moom da ko koy gëstu bu leer nga xool boo noppee si kii nga woowaat kee noppee si kii woowaat kee ko mu jaral la donte deux deux cent sax wala un an nga topp si di ko lijjanti. Mhm. ba mu dajaloo. mais am na ñoo xam ne dañ la jox information mais dañ lay sarxe bul laal am na information yoo xam ne baaxut moytu. baaxut bu nekkee nag woo nañu la. ni la lii nga def du noonu nii la. jéggulul foofa nga génn nga def conférence presse nga jéggul nga continuer sa liggéey ndax am na ñoo xam ne da lay tardeel rek. bugaan mii dina def lool. waaw bugaan mii. bugaan mii di nit. nit la nite na. xam ne <laughs> damaa mës a gis mais damaa damaa mës gis mu wax dara contraire bi am bugaan génnaat. Ah, daa wax lu contraire bi am rek. ah Cheikh Diba bi waxoo ko fi léegi. Hmm? waxu fi Cheikh Diba bi est génnaat na jéggulu wala mu ni la ma waxoon damaa juum. ah xañ na bu àggee dina ko xaale. fan wala bu génnaatee. fan. bu génnaatee dina leeralaale ni Cheikh Diba keroog ba may. génnaat na fi démb génn na. non démb kat génn bi pour leeral la. Eh, nekkoon si armée yi. bind nag armée fu mu ne moom këram gii lay nekk wala këram gee wala armeel yi. armeel yi fréquentation yi mais xanaa armeel yi xanaa fanaanu fa. déedéet dafa am bis bu mu fay ne bu nekkul fii nekkul fii armeel yi la mm, dafay fanaan. bu fanaanu dafay dem def fa ay ñaan xam nga soxnaam dafa nekk soxna soo xamante ni dafa sore woon si xolam. moo tax sax si mais dama ne gars yi bu ñu ñëwee di indil dara. bu ñu laajtee ñu ne buggaan nekkul fii ma nga Almere. Mm. xanaa duñ toog naan xamuñu fu mu ne de. kon yow lu tax nga ne ma nga Almere. waaw moom moo ko. ah mu ne woon. waaw maam tey jii gars yi bi ñu ñëwee dañoo war a wax ana bugaan si këram gii ñu ne ko ah bugaan de daa génn nga ne leen bu ñëwee jox leen ko lii nee ko yoon a ko soxla dem seen yoon bu ñëwee ñu jox ko ko. mais nag euh, mu ngi noonu daal. jàppoon ne li mu doon wax ci Mansour lii dina ci bokkaale ndax yëkkati woon ne këyit wax. non sama xaalis bu bari mm. bu mu wax ne Mansour 98 milliards. ni mm. Mansour euh, moo ko détourné muy mm. alalu Sénégal yóbbu ko ci compte ndax jàppoon ne lii. gars yi dañ ko taajaale convoqué wàlla ku mel mm. ni Mansour mu leeral te it fàttali ni ca ndar élection yi moom Mansour mën nañoo bokk même oto di campagne non non kim ne woon sàcc la affaire Mansour bi moom yaakaaruma ko ndax affaire Mansour bu dee am dañ naan ko kat doo nga wax naan dañ lañ la woo nga nga joxe document yi <laughs> léegi dañ laa bëgg a woo nga di document yi <laughs> waaw mais porté woon na plainte porté woon na porte na plainte Mansour. non daan yii la porte plainte léegi mooy am na ñetti porte. non bu Mansour bi ne demoon na yóbbu woon na ko ci yow. non daa waxoon nañ ma woo de kii hmm? document yaa ngi nañ ma woo. buñ ma wooyee naa ko joxe da maam jotuñu koo woo. jotuñu ko ah, waaw léegi jàppoon ni lu wér la bis buñ demee ba dugg si mbirum Mansour mën nañ ko wane ko dimbali ñu si document yooyu nga waxoon si Mansour. Hmm. mu joxaale leen ko. d'accord ndar gi mën nañoo bokk watta ñoom ñaar de di campagne ci législatif moom Dakar gi lay jël. bon alaaji. Mm-hmm. Bougane woolu nañ ko tey.